asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne yéenay seetaan SSP TV tey nag dañoo ñëwoon fii Malika secteur bu ñu naan Foxos Joxos ñëwoon seet si fi benn xale bu am talent mais damay nëbb tur bi ba ñu dem ci kanam tuuti waaw Pape sama caméraman fii mooy Malika koñ bii nga nekk nii tey jii mooy Malika bokk ci département Kër Massar mais nan dem wala mafia jaaj sama cameraman ba tey nee naa la yegg si nga si mafia bi fi mooy mafia fokos joxos dal jàmm gone naan ko virage ñii nag ñooy xale yi nga xamante ne ñooy ànd ak Papiko ñoom ñi nga xamante ne tey naa la Papiko saa bu xewlee ñoom ñu jaay seen i lal jaay seen lépp jàpp ngir Papiko kañ dem xool mafia bi jaaj gars yi bëggee ah <laughs> nice yéen nga am ah. naa de waa Lour. Ah, Siteu taalibe Bamba gars yi bëggee Saliwo borom jamono gars yi ma fiyaa bi mais bëggee ti ah. waaw sama gars jaas ma fiyaa bàyyi nii waa Fokos Joxos ak waa Wiraas ayca gars yi kon rek muy gaaw nee naa leen ni ko doon defee lañ koy defaatee saa su ne ci seen émission jotaay mbër ngeen ànd ceeg taga tey mu ñëwaat fii ci nga xamante ne mooy Malika yàgg naa fee ñëw tey dama fee ñëwaat te ki ma fi indi woon moo ma fi indiwaat muy xale bi nga xamante ne nee naa leen saa bu jugee Malika Kër Massar benn baraag ñëpp jóg xale boo xamante ne mooy borom événement yi mooy borom top 5 borom bis yi neex yi borom fecc yi neex yi kooku mooy kan kooku mooy Papiko bu ñu nee Papiko nag dañuy ñëw rond-point fi nga xamante ne mooy Foxos Joxos ak mafia dal jàmm ak mafia ame ma leen di bëggee ñoom ñëpp Papiko nuyu nañ la. waaw tey ñu ñëw fii seet si la sa koñ fekk la fi nga xamante ne mooy rond fekk fi mafia bi yëpp gars yi nga xamante ne tey dañuy sonn si yow di la jàppale di daw guddeeg bëccëg ngir Papiko tey tey lor si loolu. ginnaaw ma sant yàlla di julli si yonente bi di sant may ñaari waajur di sant sama sëriñ Cheikh Modou Ka xam nga bis bi nag seen bis la yi la daal nag ñoom su ma jógee gaa yi gars yi koy teew xam nga dina bëggee yow mi tam waa SMT TV xam nga dina bëggee yéen ñëpp ah wàllu mais Papico li lay njëkk a laaj benn question la rek lan moo njëkk indi mafia foxos joxos waaw foxos joxos lu mu indi mooy mafia dal jaama rek fii moom jaama am fii jaama jaama ñoom ku yéen leneen loolu jaam moom amaana loolu noonu sawaxi bopp la rek ñëpp benn lañ daal loo war a gars yi gém gém ba taxawal mafia foxos joxos daal waaw di nga gidree moom moo loolu Baay Faal la daal affaire foofu la jógee daal mafia foxos joxos bi ah sëñ Saale kon moo créé loolu waaw loolu dafa leer. mais Papi Gora lan moo ko dugal ci làmb. waaw tagaa loolu loolu sama laajee kat dinaa ci tontu Papi Gora lu ko dugal ci làmb leen la rek bëgg làmb torop xam nga te dara taxul tamit kul tamit boo ñaa moo ma gën a dugal gën a dugal tamit ci làmb tamit naam Papi Gora du ma poussé du ma poussé ba fii tey kon ngir yàlla ginnaaw dama man dama mel ni man dama koy sante boo ñaa bu bëri dafa leer tagaa ndeysaan ginnaaw boo melee nii da nga koy sante Boy Niang mais Papigo à part làmb Papigo lan lay liggéey. non Papigo li muy liggéey Papigo coiffeur la day wat. Papigo coiffeur la quoi day wat. waaw day wat du bëri doole. kon yaa jàpp gone yi fii di leen corate. da ko dafa leer tagaat. waaw hmm. mais Papigo bu ñu jógee foofu ñu waxtaan ci CNG. CNG dañoo fal benn président bu bees boo xamante ne nii kenn xamul ko suma ma juumul. ñi wala ñi ko xam ci làmb bariwul. te noo gisee loolu ak loo waaw mun na waa CNG ma moom lu mu ci yàtt lu bari ci yaatal lu bëri ndax CNG man moom xaw xamat lu bëri ko waa seen président bu ñu taxaw ni sax laa walaay waa taala xaw ma ma laaj moom naa ko dama a si laamu mais président bi fi jógee loo xam si moom muy Alioune Sarr non Alioune Sarr ma wax rek tagaa tagaa lu wax rek CNG moom xamat lu bëri mais xanaa yàgguñu di la avertir wala ñu lay dagg non dafa leer xam naa loolu mais buñ la avertir wala ñu dagg la maanaam fay damay jëli reliquat bi loolu kan CNG ngay jëm. waaw kon nga ne xamoo CNG. non non non du ma la xamoo CNG xam naa CNG bu baax dama bokkal lépp la mais ñoom damaa xool boog li ñuy def boog mu ma cee wax. mais Papigo nan lay dundee ak waa koñam. non jàmm ak salaam laay dund ak ñoom rek jàmm ak salaam Papigo moom ku moom Papigo xam ne Papigo moom Papigo salaam la amaana bëri na kaf bëri na mbalak ba dañ koy jaanale fa bool bi kat dafa indi dafa réew te teewul noonu. ma sama kafa bëri nag loolu kese ñëpp jàmm ak salaam lañ ma yéen laal yéen daal waaw sama jóobi ah sama mbër mi booy soose moom borom baaba bu mu ak lépp ak sëñ Bamba waaw moo lool mais tey dafa ñaar ñoo xamante ne ba ñett ñoo xamante ne déggoon naa fi ma fiyaa pour cent Malika bi waaw mais ñaar ñoo xamante ne ba ñett ñoom ne gisu nga leen te ay champion lañ yàgg nga leen dar wala yow ñoom bu ñu xewlee nga dar leen muy Ama bu Malika ak Boy Niang ak ki nga xamante ne mooy Unca ana ñu. waaw Diago moom dans dans émission Boy Niang mooy lool mooy teew xam naa si kanam moom baax na même chose dans émission quoi moo tax mu daal mooy lool mais xam naa bu ñu teew moom naa kenn doon si jiitu. mais mafia 100 pour cent Malika bi mu ngi dox ba léegi wala. waaw mafia 100 pour cent Malika waaw mooy dox mooy dox de. Hmm. bilaay kan moo jiite loolu. moom foo jëlee ñoom Kara Doole Boy ak gars yi yëgal nañ sànq daal ñun daal ñu ñu ngi seen ginnaaw. Papico ban écurie la nekk. non Papico mooy Kër Masar Mbooloo. Kër Masar Mbooloo. di doomu Malika xanaa Malika amul écurie. non Malika am na écurie. mais man boo doon xool man Malika laa jógee doo dem Kër Masar Mbooloo man sama lépp Malika hmm. la. wala ma dem Kër mais yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg dañuy dellu fu ñu jógee woon ah. moo tax nga dem Kër Masar mu waral loolu. mais loolu à suivre lay doon tagal non mais loolu dama bëgg nga yaa ngi en direct ci seen TV yaa ngi en direct nii yaa ngi génn nii dama bëgg nga ñamal ma tuuti li nga xamante ne maanaam dafa naan dafa am ñoom ne ñu Malika te xamuñu la moo tax Papiko dem écurie Kër Massar loolu kumpa la si ñoom mais ñamal ñu si tuuti non tagal loolu programme benn émission non doo ñu si ñamal tuuri non loolu maa la ko ñaan da ngaa jàpp jàpp ci. Eh. sëñ Babacar. mais foog nga moom jàpp man moom jàmm ma am ak salaam kama saa même chose. bilaay wala wa taala fee fee lépp benn la bilaay. mais Pape Ngop fan la toll si làmb ji instant bi lu muy waajal. non làmb ji mu toll nii instant bi mu toll nii moom ñoo ngi di daati fanaan di déglu gars yi tamit xam nga di sant nag sama mafia bi bu baax a baax a baax su su mel ñoom caat ñoom Siteu ak ñoom ñoom Demba ak ñoom ñoom Sota daal ak ñoom Tafa waa ñoom Babacar waa ñoom Ba sëñ Saayu ak tamit sama waa côté Kanjugal ñoom ñoom ñoom duñ ma bëgg seen bopp ak sëñ Bamba bu leen neexoon bu leen neexoon ni carrément booy bi kat <laughs> booy bi kat ka na kat na nga bàyyi mais booy balaa ma nekk waaye dégg nga booy yi taxoon ay carrément carrément avant la woon balañ ko xam nga la war a loolu waxin la non mais loolu la gën a bëgg nga yaatal ko leeral ko non carrément waxin la ñoom ba léegi wax jooju mooy yaa ngi fàttaliku mooy suñu open presse bi. suñu open presse bi ñu defoon mooy boo xool ba muy ba benn benn ay carrément carrément moom noonu lañ. jàpp carrément bi <laughs> carrément boobu lañ jàpp ba léegi nii. Euh. mais tamit di sant sama jigéen ah tuuti ah moom jaamu ci moom ah. yaa ngi sant tuuti. waaw. Hmm. mais carrément lan non carrément boo xoolee waxi na rek carrément carrément. carrément ah, carrément waaw daal. Eh. waaw. mais su weesoo loolu baa ñu dugg fii xool Zé. waaw moom balaa ñu balaa ñu dugg sama gars yi ay ñoom mafia amee ay ñoom xamaa. waaw pour demee soo dama koy jiital xamaa. borom mafia amee ay ñoom a Saliou ay ñoom Mambala ñoom Njawar waaw ay ñoom Cheikh Lo ñoom ñoom Cheikh Lo ñoom Ibou waaw ñoom daal. ma leen jëlatu la ak sama rakk ji ah, ak kooku mbaaka mbaaka ah, Fallou a ñoom Ibou Tafa Sërif daal waaw moo lool ak waa Kañ Jógal ñoom Bàcc ñoom Fallou ñoom Baye Maana Baye Faali moo loolu maa ne walloo ba taga waaw yéen a ngi dégg li nga xamante ne moom la Papiko wax jógee si mafia bi yëpp léegi lu ma def lu ànd ak sama caméraman ñu dem am ñu xool fii tuuti ñu wax ñu kan mooy Papiko ayca sama caméraman nan dam ñëw gars Zia yoo lee salaamaaleykum yaay booy ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm waa ñu ne Zia la ñuy laajte Zia ah ki mooy Zia ah Zia dama dégg mbëri di wax ay xeetu baax baaxam di ko waxal teraanga yi mu leen di defal kon bu ñëwee tey si Malika seet si ki nga xamante ne mooy Papiko kon noo def ñu gis jigéenam boobu di Zia Zia ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. mbaa yaa ngi am jàmm ana ndambe ak spaghetti yi may dégg ak yenn affaire ginaar yi. yëpp a ngi fi yëpp a ngi fi. Eh, mais tey de loo xam ci Papiko. moom sama doom la man bàjjenam laa. maa ko yar nag ba ñu xale ba tay ba noonu toll ni maa ko yar mu nekk xale bu baax xale bu yaru respecté ma lool nag fonk ma du xippi sax yaakaar lool man. kii ba des fois ku mën a jàppante su ma ñëwee su ma ne ko baal day baal xam nga loolu la kon nag man dama koy ñaanal yaayam ji nag toog ci dara ma di ba ko ba danaan man sama nekk ci danaan dem nañ ci Zé Badiana man man Badiana moo nekk foofu man nekkuma fa sama may wax sax man man Zé bu ma wax. Papito sa doom la man suma yoon nekk ci Papito xam nga su ko neexoon loolu du ko ci fekk waaye yàlla gis na lépp mu fonk ma lool fonk samay xale sama doom bi nag mu respecté ko lool muy tuuti bëgg ko lool mu doon xaritam kon nag dama koy ñaanal lépp lu mu bëgg ci carrière am rek yàlla na ko suñu borom nga defal si barke Seydina Muhammad defal ko mboolem jubé ay ñoom Unca ay ñoom Tumlees ay ñoom ñaa ah, amee soose gars yooyu ñëpp maa ngi leen ñaanal yàlla ak fii eh, ama xale yi surtout mbëri koñ yi daal ñun ñëpp ñu dem dem daal ba nekk roi des arènes loolu laa leen ñaanal. waaw kon yow Zia jàmm ñu bëri si yow. waaw ok ñu ngi lay jaajëfal. waaw soxna si maa lay nuyu. am nga jàmm baax. Ah, ah ñu ne Papico moo ñu indi fii tey. te bu ñu ñëwee fii seet si Papico fa lekk ñu ñëw seet si leen ndax yéen ay yaayam yaay booy waxal ci Papico. Papico daal suñu doom la. yaayam mu ngi ni toog ko ko bu mu ma koy xame tey ni mu am li ñu xama ko du ma wax nu mu def su ko wax ko ko bàyyi ko day bàyyi kon ñun loolu mooy suñu fierté nga gis sa doom bu génnee dara ci moom eh, ko gis dañ koy gërëm loolu mooy suñu fierté suñu ndey ñun yaay loolu mooy suñu fierté parce que neexul mën naa jur sa doom bu génnee nit ñu ñëw loola sa doom defal na ni defal na ne loolu baaxul duñu fierté lan mooy suñu moo nekk nii tey papi ko toog si kanam caméra di wax loolu mooy suñu fierté tey. loolu dëkk la si yéen. waaw dañ koy ñaanal rek lu mu def na ko may ndam léegi après boobu conseil bi ma leen jox xale yëpp nañu xam lu ñu def xam fu ñu teg seen tànk xam bu ñu génnee comportement ñu war a jël nañu koy xam. parce que loolu mooy suñu souhait ñun dañoo juddu ci pauvreté ñun amuñu dara donc tey bu suñu doom ñu génn dañoo war a xam ne seen yaay de amuñu dara ñu xam lu ñu def man dafa koy ñaanal rek lu mu nekk nii daa ko continuer faw ci la yow def koy ñaanal udu fan ak wér. yaay booy ñu ngi lay jaajëfal waaw ba nee naa comme li sama comme li bi doon wax Yves Ifñaa ñaan na yaay ju baax moo noppal doomam waaye doom ju baax moo noppal yaayam kon yaay ju baax jaa ngi nii kii mooy yaay Papiko. waaw looloo yaay ñëpp. yaay ñu ngi lay nuyu. Serigne Touba ñëw fii ci bi nga xamante ne nii. seet bi sa doom mooy Papiko. di champion bu mag. te yaay bis bi nan la la dikkee ak ban mbégte nga ci am. ak tey ji ñoom seene bu ñii seede biñ seede ci Papiko yaay booy. xanaa bis bi de di kontaan rek jël contentement bi di ko tegaat ci yéen ñaa ñi fi ñëw. ndax Papiko ku mu yëkkati rek ñun dañuy jëlaat cër bi joxaat leen ko te man damaa jëlaat cër bi tegaat ko sa loxo nga bokk ko sa caméraman may gërëm ñoom seen bu nii naruma woon a wax sax ndax bu zee waxee rek man lépp mat na ami wax ak sumaare wax rek lépp mat na damay ñaanal nag ñëpp laay ñaanal ndax man maa yaayu booy yi duma sempi kenn di teg ñëpp laay ñaanal booy ñaa uncaa kara doole Ama man daal bàyyiwuma kull kuy mbër bàyyiwuma ko zoo ñépp papikoo nag doom la doom ju jaru jur ndax maanaam nee nañ ndaw il faut nga dox ko mais boo ko weesoo da ngay doxi leneen doom yëpp a yem duma ne sama doom dafa baax sama ko waxee maa ci heure mais nag li ma ko xamal ubbi place am wat laa ko xamal dem liggéey liggéeyi wàcc ànd ak papaam ñibbisiwaat ubbiwaat ak place am papikoo lu ma ko wax neex na ko parce su ma koy dóor day toog ma di ko dóor barki maam Cheikh Fall billaahi wallaahi wa dama koy dóor mu toog ma toog mu toog di jóg su ma paree mun baax na loo def baax na man yaay sama lu mu am nag bokk na koog lekkul dara bàyyi ma su ko nee Papiko hé mu ne li nga wax loolu laay def allah daal ni mu toll daal noonu la toll dama koy ñaanal nag yàlla yàlla mu musal ko ci cat ak musiba ak balaa di ko ñaanal nag mu doon roi toll fa ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lo toll mu toll fa ci barke maam Cheikh Fall ba keroogee ngeen ñëw fi ñu sabuure ak yéen ngeen xam ne lépp dëgg la jasineer solo mais ba dugg lan lay ci biir kër gi ni muy dundee ay rakam bëre café lu mu am bàyyi bokk ak moom magam foog naa ne moom mooy rakam day bërëg mag mag ji di ko fob ak lu ne koy def ay rakkam tamit noonu Papiko man du ma atte sama kër man samay waa kër du ñu xeex macha allah ñoom ñëpp benn lañ Papiko bu jël jëndee léegi t-shirt teg ko rakkam moo koy ñëw sol du ŋaan barke Serigne Fallou Mbacké billaahi wallaahi mais loolu yaa ko liggéey waaw xam nga rek mën naa ko liggéey te yàlla bañ nangu ndax sañu borom moo te kenn mënul mais tey xool sedd na de wala waaw barke maam Cheikh Fall hmm. waaw lañ koy joxaat ak Cheikh Fall ndax ñun moom lañ gëm dëgg la barke maam Cheikh Fall lépp ma koy del a man taaliba sëñ maam Ngor Fall la ndeysaan borom makaale ma am la di sañu wasi ñun sépp lañ ñun foo na lamb rek foofu lañ man boo ma fekkee ci catholique nga ni catholique laa barke maam Cheikh Fall njaago mari lañ may woowee mais man soxna Mariétou laa tudd nag di sëtu maam Aziz gis nga li nga xamante ne moom la yaay Papiko wax seede ko ci doomam ay xaritam ay doomu ndeyam seede ko ci Papiko waaye ba tey nee naa la duñ bàyyi ndax ay yaay Papiko tey dañ fee bari ñu ñëpp ay yaay Papiko lañ yaay ñu ngi lay nuyu maa am nga jàmm maa yaay loo xam tey ci sa doom bi champion bu mag bi ah macha allah macha allah laaj nga ma nag koo xam ne soo ma laajee ci moom damay sawar a wax lool ndax Pape man fii xale yu góor yëpp maay seen yaay loolu la ma koñ bi bàkkeel yaayu xale yi waaye Pape yaayam sama doom nday la daf maa bëgg Pape baax ñëw yàqu ci dara mook samay doom mel na ñu mu bokkal ndey ak baay yaayam it yàqu ci dara Pape baax na yaru na am na jàmm lu mu yor moo nit ñee ko moom lu mu yor du taxaw ci loxo bi li ma koy ñaanal rek mooy yàlla na toog ba doon roi des arènes ba sut Yékini ci barke Seydina Mohamed loolu rek laa koy ñaanal mënumaa wax bu baax ndax sama xol dafa fees. sa xol daa fees dafa fees ci Papiko. macha allah xale góor fii ñëpp samay doom lañu. ñëpp koo wax mu ne yaay xale góor yi. yaay booy yaay booy rek laay dégg. bañ naa ko ba fee laay lal taabal di jaay mais ñoom ñëpp macha allah. aw ma sens interdit ci kenn rawatina Papiko dama koy ñaana rek gudd fan ak wér yaram yàlla bàyyi ñu fi nag lépp lu mu naat ci ndayam ji yàlla na ko yeggaleeg sagoom ci barke Seydina Mohamed. loolu booy ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf waaye Pape ba léegi nee maam yàlla na nga fekkee déwén kon maam yàlla na nga fekkee déwén sama séeri moo ngi nii kii ngay gis nii quartier bi yëpp quartier bi yëpp ngay gis. kii moo leen jox ndox bu ñu naan quartier bi lu muy rëy rëy rëy Malika kii moo leen di jox ndox bu ñu naan ndax moo ko gérer moo ngi nii ku xëy da ngay ñëw fii rootloo sangoo rootloo ndékkee loo naan rootloo toggeeloo añee kon kii sama xol la yow maa la bëgg ñoo nobante yow yow loolu kenn mënu si dara waaye mais maam nii naa la nga nekk sunu maam ju baax nekk koo xamante ne nii ñu lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal say fan nga yàgg fi ndax maam bu baax nga tey dama bëgg rek nga seedeel ma tuur ci sa ndax ñoo ko bokk Papiko xam naa nom nga ma waaye nom nga Papiko ah, waaw léegi nag dama bëgg nga waxtaan nga am loo ma ñamal tuuri ci Papiko dama la wax li Falang daan wax ndeysaan nee na eh! waaw alam nasaraka lakk sa doon lakk ba wada naa naa naa naa naa musu leen seytaane tabati yadda abi la wa taba maa ax ne an hu maa hu seytaane dem leen dem leen dem leen maa ngi ñaan papi kook si la yal na leen yàlla may ndam ci koñ yàlla ubbi seen buntu wërsëg may leen wér ak wér leen may leen ndam mu sama ndigg liy metti billaahi dina wér dinaa fecc ndax papi koo baax na yaru may na ma cër wax li ma naq dama koo nopp te nopp ma boo waxee mu ne ma fase naa la <laughs> si la nag moom it ñoom ñëpp daal maa ngi leen teg si la baax na yaru na sa bagage yi doon ma wàcce ñoo koy yóbbu yal na leen yàlla may ndam ci koñ bi loolu rek laay ñaan yàlla may leen wér ab kàttan duñ ko préparé ba dem bëre ji dañoo jóge fii ci sa yaay mu am lu baari lu mu wax ci yow say xaritu yaay seede ko say yaay yu ndaw seede ko ba ci sa maam nekk sa séeri seede ko tey loolu la lay def si yow Papito mais loolu noonu dama koy rafetlu quoi sama yaay sama yaay moom lépp lépp moom lépp lu ma mënta mel da koy accepté sama yaay mënoon def lu bon sax mooy loolu kéem si demee def man dara man nag yaaju mel ni daal na ko yaaju mel ni daal moo lool da koy ñaanal gudd fan ak wér wér ak wérle ñun luñ ma ba si moom amaana teewagul sax mais ba bis bu teewee doom dina neex ndayam ak sëñ Bamba sama yaay tamit ñoom daal jàmm si ñoom daal waaw waaw mais Papiko instant bi ban mbër moo nekk sa kanam non pour l'instant ne mbëri nekk sa mbëri nekk sama kama kanam bari na trop bilaay walaay wa taala bari na trop trop mais gars dama leen yoral bor di laaj damaa nga war a fay ba mat mat sëkk bat moo loolu ma leen ne sama ak a bari di laaj mais damay dégg booy nekk si média bi di ndellu di wax te boo dana leen ko fëgg bu ndab billaay wala wataala du ko sa tëji mais amaana nga dégg nit mi ko ko muy wax dafa neex trop ak a neex mais xam la moo jafe jëfin ba amaana booy nekk yow dañuy nekk di xootal mais sa ñoo jëf fi mu bëri nekk Malika Kër Massar barki sëñ Bam ñoo gën a xotteeku gars yi fuuf. dina leen gën a xotteeku. ba mu bëri doole ba mu doole gën a la ñeme lu tar. ñu mu tane dem bës ban booy dama nga wax ma ban booy rek nga xamante ne tey jii war ngeen mën a bëre yéen ñaar ci saison bi ak instant bii nii li passé ci ginnaaw muy feebaru corona bi xam nga ñu aj ay combat làmb amatul xam nga mbëri bëreetuñu mbër yu bëri son di souffrir léegi yow loolu nun nga ko jàngatee. li amoon ci ginnaaw corona beeg yooyu. non bi moom amaana dañ naan gars yi gars yi fii dañ naan am na gars naan amul ñun daal mënuñoo mënuñoo jàpp daal ba xam ne corona baa ngi daal suñuy réew daal mënuñoo kaa jàpp daal. mais làmb ji mu ngi dox. ah làmb ji mais ñun ñun ba si Modou Ndaw ñun ñun ñoo doxal làmb mais làmb ñun ñoo doxaluñu dama ñun ñun bu ñu xool ñu bënër ba léegi moo ñu bàyyi si làmb ji. dèjà billaahi walaahi wa taala mais amul làmb ji ñu bokk lu mu fay gisuñu ko. à part ça dañuy jël suñu xaalis sama gars yi def kolo kolo ku si mel waa kàddu ndugal sama waa koñ billaahi wallaahi wa jël seen xaalis xëpp ko si ñu wow mottali buñu paree lam sax am sa problème sax fay ndax leb leb dañuy ñu te loolu nag du yoon mbër bu ndaw dafa a tar mbër bu ndaw ñaan lay jël avance non yow taga loolu loolu su na wax dama sa yaram day daw sax billaahi wala gars yi gars yi amuñ si ñun yéen mande déedéet waay billaahi wallaahi wa taala ñun bonheur mooñ bàyyi si làmb mais gars dañ ko bëgg a xam quoi ñaara la mbëri ndaw di encaissé avance. non xam nga nag mbëri xam nga gars yi ñu toll nii des fois gars yi dañuy laal ay cent des fois cent yi sax boo xool du sax mat ndax boobu yow yow da ngay lekk sa manager day lekk. manager bi ñaar lay lekk. manager des fois mu lekk dix mille. cent yi mu lekk si dix mille. dañu lekk dix mille fort force moo si dara. mu des ñaara quatre vingt dix mille. yaa ngi gis loolu. nga dépassé ñaara yow. mystique bi su ma nee man dinaa dépassé dërëm. ma lekk non dina ba bien sûr. ñaata la. mystique bi loolu mënul dem mystique bi. loolu def si xaalis sax duma laaj li ngay joxe gars yi di jël kaar. ñaata ngay def mystique. non li ñuy instant bu ñu toogee moom Mbaye Fall moom xam na lépp daal moom sax wàllu moo ko yore. Kabado maa lay maa lay bégg di leen siyaar ñoom Kalaama ñoom Baye Fall maa lay bégg ñoom di leen siyaar bilaay wala wala yéen wala ma jaam ci yéen. léegi yow mbër bu ndaw ñaar lañ koy fay buy bëre combat am. mais mbër bu ndaw buy bëre combat moom man moom sama dëgg laay wax neex yàlla. man sama envie passé nii rek cent cinquante lañ ma fay. bilaay fay la cent cinquante nga def si làmb ji ñaata. lépp xaymaal ma après li ci dolli à part ñaara nga ci dolli waat quoi ci sa xaalis. moom loolu moom ket ku ni ñoom kàcc waa kàcc njugal daal. ay ñoom Bacci ay ñoom Fallou ñoom Bamor ay ñoom Lam ñoom daal ak tamit sama waa Sèye ñoom daal ñoom daal ñoo seen mën itam complet loolu moom mënumaa toog naan la lii lii ndam ndam man sama bopp laa doon préparé ñoom ñoom li doon préparé ñoom ñoo ko doon préparé daal dafa leer. waaw dégg loolu ñoom ñoo ko doon préparé ñu fay ko cent cinquante mille mu jël lu tolloog ay cinq cent mille def ko ci làmb kon CNG dafa jot pour ñu wax ak ñoom ñu jàppale ñi nga xamante ne mbër mbëri ndaw yi parce que mbër bu ndaw amul dara. mbër bu ndaw liñ koy fay bariwul cent cinquante mille du xaalis ñu fay la cent cinquante mille nga jëlaat ay cinq cent mille defaat ko ci defaat ko ci ay musique ba pare nga bëre ba pare ñu dagg la dagg la nga dem CNG war a jël sa xaalis bi nga xamante ne mooy reliquat bi li la war a dimbaliwaat nga dem CNG ne la yow yaa ma ameel mais loolu teguñu ko fenn CNG ba pare président bi ñu fal mbëri xamuñu ko gars yi def nañ ci réunion nag démb amateur yëpp ak ñi nga xamante ne ñooy ménagère u mbëri def nañ réunion bu mag démb di wax ci li nga xamante ne nii mooy li CNG taxawal muy président bu bees bi ànduñu ci léegi Papico xaaral ma xool ki nga xamante ne mooy Siteu Siteu moo ngi nii taalibe Bamba bi Siteu ziarati Baye. sant nañ la fay nañ la naka waar. ngay champion bu mag nekk fii ci Malika di doomu ndey Papico. naa dama kontaan bu baax ndax maanaam du ñu boole. loolu mais Siteu ci risé quoi xam nga mais léegi su weesoo loolu CNG li ñu def nii président bi bu bees bi ñu teg nii yow est-ce xam nga ko. xaw ma ko mais làmb noonu la war a mën a demee làmb fu ne la ko gars di dundee waaw xëy na kooku noonu yàlla ma ko wërsëgal loolu rek. man loolu di jàpp si sama xalaat noonu la ko war a mën a def. te yow loolu nga gis quoi en tant que mbër. mooy sama xalaat quoi parce que fii ku fi yàlla teg rek moo fi nekk. waaw comme que moom la fi yàlla teg nag ma ko gars yi nangu rek. waaw bay gis preuve. kon si tam maa lay jaajëfal. waaw maa lay sant mbër ñu naa la. siyaar naa la si loo ne bàyyi. na ko waari. maa am jàmm baax. doomu ndey parce que waa. waaw tey sa waay moo xew la de. waaw moo xew la naa loo gis si bis bi. ah bis bi moom dafa ala daw moom moo loolu. parce que moom li mu wax si moom bëri na. mooy loolu. ñun moom bu ñu ànd ak kuy ragal sax kuy ragal sax du ñu dem moom mooy Serigne Ba bu ragaloon fii nañ ko daan ñëpp dem feneen. mooy loolu. ñun moom mbër ma ànd ak yow fit moo tax ma ànd ak yow. mën nga bañ a mën a bëre sa mais amal fit rek boo amee fit doo ragal dara xam nga lépp taxaw sa kanam yow jàpp na yow mooy loolu da nga koy fel waaw te kon boo war na yar war na teggin jox nañu cër ñu romb la ñu nuyu ñu ko yónni woon sax day dem woon Serigne Bamba man boo gisee moom am yeneen mbër sax looloo ko waral fit mbër fit laa ànd ak moom woon Serigne Bamba billaahi kon ma jàppee ñoom Mama Lamine noonu laa jàppee Papiko tarkindaay voilà moo la demee ak Serigne. Serigne Cheikh yàlla. waaw mais gars ñu bu lay jaajëfal. waaw ah, jaajëf yaa ngi dégg mafia bi nga xamante ne nii nee naa la mooy foxos joxos. mafia bi nag ñi ko jot a xam bariwul. mais dama bëgg adduna bi yëpp xam ko. fii mooy mafia foxos joxos ak mafia amee. ak xamaa moo ko jiite. mais yaa ngi dégg ba tey li gars yi di seede si Papico ba léegi mais beneen champion mooy ngi fi soose. xale bu am avenir si làmb waxal ci soose. soose damay wax si moom lu bëri. laa yi laa kooku boo ma ko laaju sama ngay soo ko moom kenn du moom wóor na Serigne Ba xam mooy def loolu quoi yàlla mooy def nit bëgg nit na Serigne Ba soo champion la comme li ma la waxoon ci Papi Koore du ma ànd ak tàppet na Serigne Ba ba yi nekk jàmm gan fii noonu la amee tarkindaa wóor na Serigne na ay curkindaa nag mais bëriwul wax leen ko waxul ma leen moo loolu mais xam nga rek ay champion la i tànk ñu ngi tëral yokk cere rek dooli ñeex ne ko gars yi waxee rang muy mooy loolu ma Malika daa am loo xamante ne nii tey dafay daw. gaa yi di ko wax di ko waxtaanee muy daw. secteur bu Malika montagne bi loo xam si booy yi def violence yeeg yenn yi booy di dawoon nii tey jii loolu noo ko gisee. non violence moom xam nga rek fii moom mënuñu ñaax ndax violence bi xam nga si si si la si hmm. booy débutant yi. xam nga foo gis foo gis mafia moom débutant moo ko jiite. xam nga demee day am doole. xam nga waaw mooy rey. nga hmm. gis nante bu bu criminel. ngaa xëy rek ñooy rey ndax duñu xam ku ñuy jam duñu xam mooy loolu xam nga mais tamit yooyu amul njëriñ xam kon boo ci nekkee xam nga ngay wane bon exemple xam nga xale yi topp la bu la xale yi toppee rek yow après da ngeen jàmm du ragal dara xale mooy lépp góor ni Serigne Ba. gaa maa lay jaajëfal yow moo loolu nekkal si jàmm waaw soose soose balaa ma lay laaj yow ban soose nga tuddee sa bopp laa lay laaj Karim suñu Abdou Karim loolu baax na macha allah di la wax soose yu baax lu ma ko doon moo tax soose nga ñoom kaasu meew wax ak ñaari kilo mburu noonu la ñuy nuyoo kaasu ñaari kilo mburu di nuyu waaye sama dëkk bu baax waaw pakaaw mun ko sila suma waaw nga wuru kaa di ñëpp di nuyu waa Gambie Gambie maa leen nuyu bu baax waaw jaajëfal ñëpp sama booy comme ni ma leen waxee rek santaat bu baax a baax. mais Socé temps fan la toll si làmb bi la lan ban écurie la nekk tamit. waaw man maay Malika Mbooloo. écurie général bu Malika. waaw mais foo toll si làmb ji. ñu ngi di jaajëfal sama kosu di ko nuyuwaale waa Sow sama kosu la sama kilifa la lépp mën laa ko dégg sant suñu kosu mbéen bu baax a baax sant sant bu ma nekk sant kàr waaw ko conseil la si waaw di leen wax ñu ngi koy waajal rek comme ñu ko waaye gone yi di waajalee waaw di suul tànk yi rek ñu ne jam jam ren moom du yomb ren da nga fas yéene toogal xaftaan bi waaw par force la loolu na hmm. xaar bi dafa yàgg quoi ñoo xaar booy di kurbe te booy ne si làmb suñu moroom la suñu génération la gënu ñoo ñeme lu xotee mais làmb ji gisoon na temps yi dafa xaw a arrière quoi dafa dellu ginnaaw làmb gënoon na toj ñi gënoon na jax de mais léegi dafa dafa rës quoi waaw dëgg waaw lépp loo gis rek na du neex bi continuer quoi. day neex tey suba mu nakari. waaw bu nakaree nag nga xaddi bi neex du la fi fekk te làmb dañ koo bëgg ñun dafa nekk loo xam si ñun la nekk muy neex muy nakar yi toog di ko fi xaar quoi waaw. soo sa kàddu bu mujj ci SSP TV. waaw yéen di leen jaajëfal bu baax waaw di sant cameraman bu baax di sant sama yaay bu baax a baax sama yaay Ndeye Marie di sant umu baax daf ma mere sax bee baax sant booy may àndal booy la Papi Godi li ma ñun ñoo lañuy àndal bañ nekkee xale ba léegi booy lañ xam ñun ñooy ànd même génération la ñun ñëpp billaahi di wax gars yi ñu waajal bu baax di sant mafia yi fii dafa bëri mafia nag mafia waaji waaji dafa am mafia maa fi teg loxo waaw Malika maa ko téye en mais Bamba la waaw di la bu baax a baax sant Paxo Joxo si waaw. jaajëfal naa la. ba tey yaa ngi dégg sama caméraman li nga xamante ne moom la champion boobu wax muy soose maa damaa gisagul ki nga xamante ne ba tey mooy woykatu Papiko laat ana laat laat dafa war a ñëw da nga am ay sponsor ah, waa kaar rek jógale waaw waxal ñaari sponsor yi mu gaaw suñu temps daf ñuy commencé xoj. waaw noonu la demee talent kara talent gis nga may sol yëpp moo koy defal. bilaay ay Ziza Ziza bu jàmm doon. jëlal ma li yow nee na. talent kara mooy defar lii. wóor na Serigne Bamba borom daaru fii nii. Eh. sama caméraman. da leen di defar ci war a de. Ah, bindal ñu ci SSP TV waaw mais dama ne cinq heures du matin yi nii cinq heures du matin loolu fajar la mbër baa ngi nii fajar la tuddee boppam waaw ah, cinq heures ba tey nuyu naa la. naka waare. ak ma gëj la gis. waaw ana entraînement naka entraînement yi. waaw ñu si a baax. ci nekk suñu la loo xam ci kii bu Papiko bi tey. Eh, Papiko macha allah xale bu ndaw la waaw ku neex a la ku mun naa bëri macha allah am na fit am na mbooloo leen lañ koy sant rek mu gën a yokk entraînement yi gën a góorgóorlu lu si jàlloon nag mu fàtte ko parce que làmb ak defet ñoo ànd làmb ak defet ñoo am xale bu ndaw la demagul fenn bëregul daal dul benn combat kon boobu ñàkkagul dara si làmb waaw yàlla na yàlla waaw li kanam daal rawul bët quoi xale bu ndaw la mu ngi entraîné entraînement mu ngi respecté na bu baax a baax a baax a baax lu ko waral yëpp mu koy def kon boog lan moo def ñaan yi suñu yaay nañu yokk ñaan bu baax yaay faal bi mooy yaayu koñ bi billaay wallaay angib yaay mooy yaayu koñ bi ndax lan bañalul kenn dara ku am problème boo ñëw si moom mu ne la kaay def lii kon boo ko démb am lii nii xam nga rek ñu ko santee gars yi mais man maa ngi ñuy gars yi ay passage bu mel ni taw xam nga ay baj topp ñoom Moussa yaa ngi dégg ñoom Zak. Ah, waaw sama baay faal bi. <laughs> sama baay faal bi kenn la rek. kenn ñooy waajal waxtaan bi mu tooy nag. <laughs> Ah, man léegi rek parce que instant yii am naa combat maa ngi ngooñaan fay. ah yow ngooñaan fay la waaw maa ngi ngooñaan fay la date bi kañ la. non amagul date moom Fass ma ah, amagul date day amagul date. waaw mais sëñ Gari Mare yow dinañ la seet si. jaajëf mais Fall bëggee. waaw mais Baye Fall lu ngeen di waaw wala boog Baye Fall. ah Baye mais Baye Fall non Baye Fall Baye Fall mais jëla ma sama gars yi la jëlaale ma lat <laughs> laata yi nii naanaan bu mag bi di woykatu Papiko Pape kii mooy Lat kii mooy waykatu Papiko. Lat Cappé Lat Cappé. non jarul ñuy wax Lat Cappé waaw Lat Cappé Lat Cappé. waaw ah, mais Lat dama bëgg nga ñamal ñu tuuti rek ci Papiko. waaw mbër gaal la de bu guddee fooy fanaan. fii mbaaru suñ Tuubaa lay fanaan yi. dëgg la xale bu baax xale bu yarute mën a bëri. ndeysaan am jom nekk ci koñ bi sonalul kenn nag. dëgg la ñu ngi koy sant di ko gërëm. ndeysaan ndax ku bëgg yaayam la tamit teg ci bëgg rakam. dëgg la yor soxnaam nekk ci jàmm doon suñu rakk doon suñu lépp kon nag ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp kon tabitit waaw ñu koy ñaanal yàlla defal ko jàmm yóbbu ko ci roi des arènes bi. papi ko yàlla nga daan Modou Lo. mais laat wuy ma dama bëgg nga ñamoon ñu tuuti rek Balla Gaye mënoo koo daan waaye yàlla nga daan Modou Lo ma amal loo ñu may tuuti may ko waa SSP TV jàkkaarloo ak sama caméraman am loo ñu may waa SSP TV waaw SSP TV kontaan naa ci ñoom non dama bëgg nga am loo ñu tuuti di leen gërëm di leen ñaanal ngeen yegg fii TFM yegg ak Kélé bu daan géy ak ñooñu amiin ndax yéen seen liggéey ci koñ bi gis nañ ko. dëgg la fu mbëri nekk yéen a nga fa expertise bi. ñu leen ñaanal jàmm di ñaanal sunu booy yëpp ci koñ bi di ñaanal maire màggee di ci koñ bi. waaw may ñu dara. kontaan naa. sang Saliou sama xarit dara bu wayal ñu tuuti. mënu maa woy fi ñu rek. mënu kafe gaa yi nii borom kafe Touba kii dama bëgg nga jëlal ma ko bu baax a baax a baax a baax. ndax mooy defar kafe yu neex yi di ko jox Baye Fall yi ñuy naan di egg Touba. Seex a ngi nii Seex ziar. delloo ziar. na ko dóor yi. sant ñu ngi si kawam. nga jàmm ana kafe gi. kafe gi mi ngi fi di gën a neex gën a eh. waaw. gars yi dégg naa dañ koy naan rek yegg Touba. da ngay naan yegg Touba ak jinjeer ak ji bu saf saaf. waaw yaa ngi en direct nag SSP TV. tey ñu ñëwoon seet si ki nga xamante ne mooy Papico. muy seen booy. nekk seen xarit nekk seen lépp di seen champion. te dama bëggoon nga wax ma ci Papiko li nga xam ci moom. waaw Papiko boo ma si laajee dinaa sawar ndax li tax dinaa sawar mooy sam booy la maa ko yor depuis tout tànk lu nekk si moom ba bokk nañ ñun si ñu ko def mais champion la xale bu yaru laa tam xale bu jox ay magam cër ndax maam jox say mag cër mi ngi bokk si ni nga nekk si kon bi luñ la wax nga def ko luñ la digal nga di ko def sa moom ndeysaan borom baax la. te nag naa la xamal ñaar de dafa mën a bëre amaana nag instant bi du neex a wax mais li si kanam ba ko wuti bët dan koy ñaanal li nga xamante ni ñun ci koñ bi moom la ñuy wër yàlla na ko yàlla def. mais ana sa njaago bi. dabaraa ci mi fi di waajal ah, champion bi. dabaraa ci mi di waajal bu baax di wax gars yi nan xam ni tey nan xam ne bu sama bi tijjee fii lay xoyom xoyomee. dëgg waaw. kon maa ngi lay jaajëfal. di la bëggee di juge. di jóge si yow di ñëw ci beneen champion. Papa Sow ziar na la. waaye am jàmm naka doo tey dañoo ñëwoon Malika ànd ak SSP TV def en direct rek di jël si nga xam mooy Papico. ko tey loo gisee loolu. waaw kontaan si loolu ndax kii si mbër la ndax lu mu dee dee yor nañ ko xam nañ ko ndax ñooy tudd si Malika Mbow kon xam nañ ko bu baax a baax mais dañ ñu nit boo xamee si moom waxal benn bi léegi nga def ko ay ñaan kon dañ koy defal ay a rek xam nañ daa war a doon champion dafa bokk si yaakaaru Malika yi kon bu defee lu mel ni woo faa ma ñëw teew waaw même bu nekkee Malika nekk na sax benn lay doon suñu dañ koy ñaanal yàlla rek ren mu ne trop trop trop Malika mën a neex champion yëpp bëre ñëpp am ndam incha allah waaw loolu la ñu doon si sànni kàddu quoi. mais tey jii noo gisee Papiko doon champion. Mhm. bu pare nekk mbër boo xamante ne bëriwul ay combat mais bu jógee rek. Mhm. ñëpp jóg lan moo waral lool waaw xam nga Malika fii moom bàyyi boo xasee ba doon leen la ñëpp dañ lay jàppale te en plus moom dafa yaru waaw man moom mooy wattu moo fay mooy ñëw leen na nga war ma war dem waaw su ma tamit nekk borom baax xam nga yooyu boo ko boolee si koñ rek ñëpp dañ lay nangu maire yi soo ñu nee taw ñoom ñëpp taxaw di seetaan maire yi tey dañoo jaay togg añ noonu la demee nag yaa ma gën a xam te affaire bi siiwul lu wëree loo si xamul bu ko siiwaloon fii mooy loolu day mel ne tànniwéer bu tas. déet waay mbaa dina mel ne footballu dof tout sax ñu ne bii. noonu la demee nag. Eh, ma ne ko ma ne ko ñëwul bis quoi. dëgg la jaayal naa la ayca gars yi. <laughs> ba tey mafia bi rek muy gaa mais gaan boo xaree sa mburu loo siy diw. Perton. Perton. waaw ah, mais bëggee naa la. waay maa lay fay. kii si doomu ndeyu Papiko yi la bokk. gaanu Papiko Mass Rang gis naa la. mais loo xam cee si interview bi. ah lool lool si moom bu baax kontaan nañ si moom la sant bi si champion bi mooy dama doon waaye dara. waaw mais dara maa lay jaayee fa sama gars yi mafia bi eh waa ruq bi. waaw jërëma waa ruq bi. bés. sama njaago bi. mais gaan bëggee naa la. sant naa si loo ne. sant yàlla bu baax. maa yaa am jàmm. naka tey. tey ngi ful nii nga. waaw mais tey dama la gis kii bi. ak soo ji. waaw waaw ah, noonu la demee gaan suñu rakk la suñu lépp la. ndeysaan wax dëgg fa yàlla mooy loolu dafa ñu cër. naa sa ñuy déggante moom su nekk làmb ak su nekkee làmb. waaw liñ koy ñaanal yàlla daal bëgg yàlla na ko yàlla may bu baax di kontaanee. mais ana champion bi booy ñaa. Ah, waaw booy ñaa mu ngi daal déggante léegi ñu ngi waaj moom it. waaw bu baax a baax bu booy ñaar. champion bi kii nag xoolal moo war a lekk xaalis làmb. mais moom xamu nu mu demee noonu. waaw damaa tukki waaw la. waaw ah, ñoo ngi lay fay yaa ngi si TV ñëpp a lay seetaan tey dafa leer dafa tey dama bëgg nga tojal ma caméra bi. non bàyyi te dama la gis Papito bi loo xam. non Papito moom moom gaa yëpp dañuy ñëw dégg ko mooy loolu parce que bu baax la am yar am teeg loolu ko amaana li nga gis nii sax mooy loolu li nga gis leneen. bilaay maa si eh, bi. waaw sama njaago ma fi yaa amee ah, boo ko déggee nag am na lu ko waral te loo lu ne am na lu ko waral kii mooy borom ma fi yaa amee. kii mooy Serigne Saliou ak ma fi yaa waaji waaji. kii moom moom ma fi yaa waaji waaji kii mooy Serigne Saliou mais ziar naa la Baye Sall. am jàmm bu wér. jàmm bu wér naka tey. tey Saliou ah tey da nga mel ni mooy loolu de. non mooy loolu bilaay. Eh, te depuis koo xew la sa doom day nag. waaw waaw. tey seen mooy loolu xam nga sa doom ji nga naan gànnaaw fee rek mbocc laa. te wax sa caat bi mooy man ay ma téye moo la teg ma si kaw te xam nga bëgg nga ko koy fay Serigne Bamba ma sama jaawale champion yi day am jàmm de te tagaa yow mi sax nga am jàmm yow billahi sama jaaga bi Serigne Bamba Mbacké sama waay nga tey mooy loolu billahi yàlla ko def maa la gis bëgg la sama bopp ndeysaan ay bu xool bu ragal dara Serigne Bamba loo xeloo ñu teew mais maa lay jaajëfal mais tombé na daa waral ay gaab de kii ambila lay liggéey gis nga gaayen bii nii dóor katu waar na jëlal ma ko jëlal ma gaañ bi dóorkatu waar la ma ne moom ñoo bokk liggéey xam naa li ngay liggéey dafa metti trop naaj bi dafa metti wóor bi mais da ngaa ñëw tombé si bisu Papico champion bu mag la fii dëkk la ñëw tombé si nag ñu laaj la tuuti rek yow njaay mi ndax affaire yi wala. wax yàlla yenn saa yi mu neex yenn saa bu neexee da xam ne leer nga xam ne ndeysaan jàpp parce que lii la ñu ndeysaan si la ñu sotul ndeysaan lu muy jar nii écouteurs yi mooy eh, seen départ nga jaay ko mille francs yenn saa ba huit cent yenn saa nga jaay ko nga jaay ko cinq cent ndeysaan te da yeew maa ngi yeew ay six heures six heures du matin ba léegi jaayagoo benn écouteur. waaw waaw mais moo demee noonu. ndeysaan. ñoo xamoon ko mu nekk duñ ko wëri mais xamul comme xamuñu dañ koy wëri rek. sama yaa ngi gis sa waay six heures du matin la yeewu ndeysaan yor ay kaccam di ko jaay mais nee na ba léegi doxul te naaj bi gis ne nu mu tàngee moo tax ñii bu tekkiwul nee naa la kenn du tekki maa la jaajëfal da nga cee tombé ma gis la xam ne li ngay liggéey dafa metti mu ñëw wax ak yow jërëjëf jaajëf déedéet waay Fama. ay eh, kaw du dem de sama yaay ji taw nga ci jëloon ma ko. ah mère yaa ngi noonu. alors ah, moo ngi ne moo ngi ne di dem ah. ah mais kay. waaw bàcc sëñ Ba non du ma dem lool. ah waaw moo lool sama yaay bu. salaamaaleykum. waxal maaleykum salaam waaye. maaleykum salaam. na nga def. yaa ngi si jàmm. ah maman dañuy ñëw rek fekk la sa bëgg nga toog ngay yaay bëgg ko. tey gis nga dañoo ñëw seet seet si ki nga xamante ne mooy sa doom dama bëgg nag nga wax li nga xam ci moom. xanaa baax baax bi lañ xam ci moom. ndeysaan baax na moom macha allah ñu dëkk ak moom ci commune bi mais baax rek lañ xam ci moom te baax te baax. kon nag damaa météo. ah doo wax tuuti ci commune ko rek. billaay. bilaay baax na ziara di soxna si. waaw delloo ziar. yaa am jàmm. sant bu wér kay. tey nag dañoo ñëw Malika fii seet si leen. seet si waale seen doom Papiko mu ñëw présenté ma la nga war a wax ci moom ay xeetu baax baaxam yaay booy ñu ngi lay déglu. waaw Papiko moom ku ñuy wax ci moom du jeex wax dëgg yàlla xale bu baax la bu yaru bu jox ñëpp cër ah man boog si man te loolu lay dund si koñ bi itam bëgg nañu bëgg samay doom bëgg na ñëpp amul ak kenn problème di ko ñaanal yàlla rek ci kaw si kanam ci lu baax daan rek ay ndami ndami ndam di ñëw parce que dinaa mu xam ne sama goro la nag Serigne sa sama doom laay may doomam. sa doom ah. <laughs> waaw mais pël bu rafet laa gis sa ginnaaw nag ah pël bu rafet mais pël bu rafet nii naa la. fay naa la. am nga jàmm. waaw am naa jàmm ah, mais Pape man moom ah pël bu rafet bi ah kii da nga war a may nag ak doomam. <laughs> dig mbaa dig ñu may nag ak doomam. ankay eh. waaw. boo ko waxee naa ko gëm <laughs> mais yaa si jàmm. waaw maa ngi sant tey dañoo ñëw seet si seen xarit seen rak muy Papiko. waaw tey loo xam ci Papiko. Papiko dafa dëgg yàlla baax doomu laa ko xamal. ndeysaan ak yaru dëgg yàlla. nekk ci koñ bi rek bari jàmm amul kenn benn xaar ma yàlla wax dëgg yàlla jox ñëpp cër dëgg yàlla mag yeeg xale yeeg ñëpp la jox cër dëgg yàlla daal laa ko xawal moom si lu baax daal lu baax daal laa ko xawal moom wul waa wax. te noonu la lu baax daal moom. Euh. laa ko xawal wax dëgg yàlla. mais yéen xale yi kan mooy seen mbër yéen. kan mooy seen mbër. kan mooy Papiko. Eh, champion la. waaw. day bëre di daan. waaw. si nii la. mbaa yaa nga am jàmm. xanaa bébé mën nga koy may. amaguma jabar te damaa bëgg may ma bébé bi. yàlla na la ko yàlla may. Eh, mais si yaa ngi jàmm. maa ngi si bu baax la de xale bu yaru la tamit am na may na ko nit may ko boppam. yaayam di ku baax nay mari waaw moom moom lu mu am joxe ko jabaram aadama ko gërëm di gërëm aadama ñu baax ci koñ bi lañu nekk mais ñëpp jàmm fii lañu nekk di foo di kaf di ree heure ko di jot ñu dem tëdd mais ñëpp jàmm loolu daal laa xam si te noonu lay dundee ak yéen salaam ndeysaan ndeysaan xamante bi yàggoon nag mais may ñu xamul cent ans moom ñi sama jigéen ñi toog ba ci ba ñoom jàmm si ñoom rek moo loolu moom moo baax rek waaw mais nag wuy ma ki nga génn dafa nooy rek sañ sañ kan moo fi jaar Pape jëlee ma sañ sa fa du toog Babs la Babs Babs na Babs yëpp yaa borom di lay wala taal ay gis ay kan lay teg wala ba mais gaan open press bi nag ah daa mel ni jax na de. moo yow tey yow la nga wax nag ba sëñ Bamba ci gën na sax. barki sëñ Bamba gars yu bëri yeewoo bu ñu. déedéet waay billaay walaay dama bëgg a ñëw bi wax sama wax kan ñu wal ñii nii kat ñu son suñu wal nag sëñ Bamba. non waaw waaw waaw waaw waaw waaw. mais Saana eh ma fi yaa Saana. waaw waaw waaw. waaw mais waaw waaj waaj nuyu naa la gars. fay naa la gaañ. si loo ne. waaw maa ngi nii rek. naka dóori. waaw taw fex baax. mais da ngaa mel da ngaa retardé. wallaahi dama doon nelaw gaañ. dama dama guddee tëdd barki yàlla. mais yaa ngi si jàmm. waaw naaj ma am tey sa lonko lañ seet si. wallaahi affaire bi rafet barki yàlla. naaj kay booy jantal booy la ñoom ñëpp barki yàlla. waaw dañuy am jàmm rek. yaa ma gën a xam. sama jàmm baax na foo toll si làmb ji dégg naa la si làmb ji nag foo toll. naaj maa ngi nii rek wóor na yàlla depuis booy bi ma daanoon fi xam nga booy bi daa mu feebar gaa dama baal bëre yaa a ko daan mu feebar. booy na la baal bëre signature bi yaa fi woon naa. ñëwoon naa fa alkatal. waaw ba léegi jugul. amul bëtëri moo la doxul. kàndam. ah mu jëloon la sa jaaro jolis ziar na la bu taakale a a loolu la demee nag ba yaa si jàmm naka waa de sant yàlla bu wér kay ba am tawfeex sant yàlla loo xam tey si bisu sawaay bi waaw bisu sawaay bi xanaa di ci rafetlu di si kontaan di leen gërëm yéen nga xam ne yéen déplacé wu ñëw di dugg ko ne xam nga cere fii di bëggee gaay xam di leen ñaanal mu yokk taw féex jëm si kanam xam nga di ñaanal tamit suñu mbëri yëpp boo yëpp gën a góorgóorlu xam nga yow confiance xam ne gars yëpp ñu ngi seen ginnaaw ñun Malika la ñu am moo point fii la phase bi nekk 100 pour cent Malika bi 100 pour cent Malika ñun bu ñu soxee suñu mbëru Malika lañ ciy diw ak rond point ñun tàpp nañu loolu mbaam da jur si biir wax loolu bari na buñ xaree seen mbëru man ma war a xar sama mbër wala soxalaa moom mu xar Malika am diw si Malika ah gaan noonu la demee nag waaw jële ma mafia bi mafia bi yëpp a ngi nii mafia bi yéen bu ngeen xaree seen mburu loolu ciy diw rapajo leen siy diw. déggu ma def. rapajo rapajo rapajo mooy soos yëpp moo ko doon ak kàttan jugali mi nga xamante ne tey jii nee nañ moo jiite mafia nekk foofu noonu. mafia Papico bi. mafia Rapadio bi sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay nuyoo di nuyu suñu yaay toog di nuyu ñu nekk fii ñëpp di nga jiital suñu yaay bi Ndeye Marie xam ñun ñëpp suñu yaay la ñëpp la jaar ñëpp def comme doomam. di di nuyu suñu bëri ak mafia ak mafia yi fi dajaloo yëpp ay mafia yi nii yëpp yi fi dajaloo surtout mafia rapajo bi di nuyu suñu gaa yëpp billaa walaay di ñaan yàlla yàlla ma ñu ndam tey jii suñu demi finale di nuyu nag bu baax ndax borom baax la billaahi ñu nag moom moom yàgg nañ ñoo dëkkoon gaa mais ñoo dëkkoon mais léegi dëkkatuñ mais léegi dafa mel ni ah léegi sax la suñ diggante gën a ratax ka ka bañ dëkkee billaa walaay di nuyu tamit cinq heures cinq heures du ñoom ñaar lañ am billaa walaay ñu nekk ñoo xamante ni dañoo bëgg billaahi nu ñu bëggee sax ñun bëggee wuñ leen ko lépp luñ munti def ah dañu ñëw ba si ñun wax ñu ko barki yàlla muy guddi muy bëccëg billaa walaay lii bañ ko liyee guddi ay guddi la ñëw si ay guddi la ñu fee billaa walaay fu ñuy daaj ñëw ñun ñëpp amul kenn kenn lañ kenn gis dala koy wax barki yàlla nga yëg-yëg rek a foor billaa walaay am na yëg-yëg nangu naa entraînement am na fit mën na bëre billaahi ñu koy ñaanal yàlla rek mu dem ba toog si roi bi rek. sëñ Fallou ñu ngi lay jaajëfal li ma dese nag si suñu temps bëreetul ba léegi nee la ñu ngi fii ci Malika ba tey Malika montagne ah. ba ci ci Papico lañ nekk léegi Papiko daa ñuy waxtaanaat tuuti rek balaa ñoo tëj suñu émission. waaw balaa ñoo waxtaan damaa bëgg gërëm ñoom ma bëgg gërëm ñoom ñoom Abdou Gueye Ka jóge sama njaaga ñoom Vince ñoom Nixon ñoom Lazare ñoom Bob Marley xam nga ak jëpp sama copain ñoom Papa ak ñoom Noreni ay Modou Fall bay naan le bilaay ñoom sooy ku lu daal maa leen bëggee waa café gi ah. ku lim tamit da ngay juum quoi maa leen bëggee yéen ñëpp dinañ joxe message ah bëggee. xam na. ay mbokkam ni ba pare mais Papiko maanaam instant bii nii nii nii ni ni loo gis ci li nga xamante ne nii mooy euh, lii bi nu mu tuddati règlement yi gars taxawal ni règlement yi nga xamante ne moom lañ génnee démb règlement yi loo gis ci règlement yi. mais règlement dama comprendre que man bu la dégloo ba ma loolu moo tax pour la laaj benn bopp. non mais règlement yi quatre app du jël la. quatre appuis waaw. fes du jël la. loolu dafa leer mbagg du jël la. bopp du jël. tat du jël fes du jël. Mhm. mais gars dañ ko bëgg a changé. gaa bëgg dina waat. waaw mais la su ko bëggee dindi dina métti de. mais sëñ Bam bu ñu bëggee dindi quatre appui ay fes. mais parce que imaginez bu ñu wër ndomba ñu wër la ndomba nga def trois appui. man loolu noonu wax loolu noonu waxi gars yi la rek mais loolu noonu mënul deñ loolu mënul nit nit nit jàpp ma dem dem moom kàpp àpp yi parce que dañ yaa ko rek mais fu ma suba du mais li ngay encaissé si ay coup day bëri mais moo tax nag loolu nag mënu fee deñ loolu moo tax ñu bëgg ko dindi nga mënul deñ kat àpp yi jël la force fes jël la bopp jël la mais parce que damaa xam ne mbër bu entraîné ay ay un an ay huit mois nga ñëw rek arbitre ne prime ñu def ni rek def quatre àpp ñu ne làmb ji jeex na loolu yombul mais tamit non mais du ma la yomb la mais mais bu taxawoon taxaw bu baax du demee noonu loolu mënul dañ. kon yow gis nga ne quatre appuis warul dañ si làmb ji. non non mënu waru waru mën a sax dañ bu dañee làmb ñu ne mel trop. ndax hmm. sëñ Mame bëri day tàddal lu yow yow boo xool yaa ngi xool avant ba mu dañul woon di nga gars yi bu ñu bu ñu war quatre appuis di nga toog cinq minutes dix minutes combat bi day yéex sax doog sax daan moo tax gars yi léegi loolu lañ gis. moo tax gars yi ne quatre appuis léegi jëli la des jëli la lépp jëli la. ndax sëñ Mame loolu loolu moom naaj moom waa CNG moom. delloo muy den de. bilaay delloo muy den moom. waaw moom ñoo ko président bu bees bi. ah président waaw loolu moom dama koy lancer message. waaw loolu moom bis bu dañee fii nii nii xam naa kon waa CNG léegi xam nga ñu mujjee def léegi di bëre ñaari combat ndax xam ko kon dix combat moom dootul am ndax boog daani bu comprendre loolu moom loolu moom bu mu deñ. waaw da gis mbër boo xamante ne day dem préparer combat am ñëw affaire bu ndaw yàq combat am. Hmm. arbitre des fois dañuy juum man ñun dañ koy seetaan ñu journaliste yi dañuy dem stade gis arbitre bu juum. nga daan ñu jox kee victoire. mais tamit loolu boo mais est-ce que jotu woo ñu dagg arbitre yi arbitre yi waruñu leen di dagg comme ni ñuy daggee mbër yi comme mbër bu tey ji boo tardé dañ lay dagg soo soo arrière dañ lay dagg am na yenn ses boo dóoree fii ñu dagg la mais arbitre bu yàqu combat na lañ ko war a def. mais loolu nag loolu nag gis-gisam la rek mais dem xanaa yow nit boo entraîné combat bi day diire di nga entraîné cinq mois wala quatre mois di diire sa combat lu ñàkk fay nga daan nit. nit ñëw naan kee moo daan loolu lu wat war nga ko xoolaat waa bilaay wala bilaay walaay lool lool du du ma attu loolu rafetul rafetul damaa bëgg at bii kat ñu jox mbëri gëdd mbër ba bu si daan même même même yow da nga kaa sax mais mais joxal ko daan victoire loolu moo logique quoi mais leneen bëgg teg ma si làmb ji mënul logique loolu ko laa doon wax. ko sa kàddu gu mujj ci SSP TV. mais lii moom télé bu rafet la ma loolu boo xool ma sama première open presse ñoom ñu ma ko dóoral invité nañ ma te bu leen neex loolu yëpp ba ngeen mu bañ a teerte nga bi kat bër na mais jobal na loolu bu leen neexoon tey jii li li ñu ma defal kat ngeen xool mbëri mag yi ngeen la koy def mais carrément defal leen loolu xam nga mais booy bi may yóbbaale xam nga loolu loolu doo ko kereel mafia mafia carrément loolu mënul nekk mënul nekk boo dañuy jàpp kaañ mënul nekk lii moom télémonage la te jaasa ah, jàppagul dara muy dara ak ah, ñoom zee ak ah, ñoom tuuti ñoom ami kolle ñoom faama ñoom xojo ñoom daal ak ñoom ak ñoom tan at suwaana moom fur yi ñooñ koy jaar dañ koy sax may gratuite billaahi walaahi wa taalaay ñëpp a ñoom waaw cuuc cuuc xam nga cuuc cuuc ga jël ma cuuc abog sama mooloo sama njaago bi de ana tan ana maa ngi gërëm bu baax ak ñoom mari zo ñoom Papa Ndiaye xam ñoom Moussa taal ñoom Awa Cheikh ñoom daal waaw waaw ak zëna tamit Saliou maa lay bëgge jox sa wàcce waay bu wér a moom borom baax la Saliou ak ñoom Kara Doole ñoom général Malika Malika daal ñu ngi noonu fii ku lim da ngay juum ak ñoom xamaa ma fiyaa waaj a waaje xam nga ak ma fiyaa a mai ñu ñoom di leen bëgge di leen siyaar ak ñoom sama gore yi tamit na sama gore ñoom Faba ñoom Seydou Malé ñoom Seydou Malé moom moom waaw li ngeen ñaanal moom xam na ko bu baax billaahi walaahi wa taala ko moom ak ñoom Philippe billaahi yéen ñu leen mais yàlla moom moo tegee ndogal danañ koy nangu billaahi walaahi wa taala ndax ah. wan loo moom moo fi xewoon dañoo ñëwoon Malika seet si ki nga xamante ne nii mooy Papico nekk champion bu mag waaw xam nga lu ma la wax tey dañoo ñëwoon defal ko interview fii ci koñam fekk nañ fi yaayam fekk ay am di jaamam fekk fi supporters yeeg mbokk yeeg ñëpp Papiko wax na wax ju am importance déglu nañ ko te incha allahu rabbi en direct la woon te ñëpp dinañ ko seetaanaat incha allahu rabbi ma ñëwoon fii ànd fekk sama caméraman indi ko fii ci ka xamante ne mooy Malika ñu doon def suñu émission jotaayu mbër te Papiko moo xew xewle woon nag mais yeneen mbëri maa leen di jox rendez-vous. mais tamit dafa la tamit sama sama jëw wow noona Eh, Mbaye Fall di la bëggee ak sama rax jooju ma ne ko ay ñoom Magada ah. di leen bëggee waa Kees da di leen bëggee Kulu ay ñoom waaw ñoom building building moom building ah di leen di la siyaara waa año waa Malika. mais Pape dama kaa xaw a mere sama rafet bi ñëwul. rafet dañ maa invité bis bu rëy. vendredi bi passé ma ñëw ba fii wax la ko. bu wax la et Cheikh Lo maa ngi koy bëggee de. waaw Aliou ah. Xadima. Aliou Xadima ma invité woon rafet vendredi. moom ñoom Cité gaa yëpp ñëwuñu. dama leen meree nag. non bu wax loolu noonu lay demee ba tey man maa ngi bëggee ñi nga xamante ne nii ñooy équipe SSP TV bi yëpp di bëggee Pape sama caméraman di bëggee ñoom Salif ñuy monté xam nga ñëpp maa leen di bëggee di leen jox dig daje seen émission jotaayu mbër ba beneen émission avec Taga foofu la Malika la ñu wax 100 pour cent ah. jëlal ma ma fi mais wuy ma dama bëgg ngeen laaj dama leen bëgg a laaj. Cheikh Lo boo xaree sa mburu loo siy diw yow. Ah. loo siy diw. Fall boo xaree sa mburu loo siy def yow. yow da nga bëgg am poids. seelo waxa yow. nu mu fa demee noonu gaan ay eh, Papiko suñu mbër la de. ndeysaan baax la jàngal la. dëgg la amee combat ñu ñooy si ginnaaw. ndeysaan ragaluñ lool de. billaahi mooy suñu champion. ndeysaan suñu suñu Modou Lo bi day si kaw sa kanam. ci lu baax billaahi. nee naa la ñun ñoo xew si jamono. ñun ñoo xew si jamono ñun ñoo fi yëngal ñun ñooy SSP TV ku bëgg def buzz rek ñëwal SSP TV tey Papiko moo xewle woon mais xam naa ne sunu temps moo ñu xoj dañ koy dagg ba beneen émission ak yeneen i mbër ci kàttanu yàlla maa ngi bëggee ñëpp di bëggee sama caméraman chaque jour damay doole di la bëggee Père Bekaay Mbaye maa ngi koy bëggee di bëggee ñoom Lamane Télé di bëggee ñi nga xam ne ñoo may jàppale ma ne ak sama téer ak ki ma sañseel dama bëgg nga wax xool sañse bi tey Sidi moo fi jaar Sidi Sidi moo génn fii Pape jëlal lépp Sidi moo fi génn sañse fii rek bàcc xam nga lu ma la wax di bëggee ñi nga xamante ne nii ñooy sama mbaa ma fiyaa di bëggee Babacar bi nga xamante ne nii barki démb moo ma tuddee bisam bu rëy rafet ndeysaan bu bàyyi fi ñëpp tey jii yoruma dara meluma nen mais dafa jël bisam bu mag tuddee ko ay monsieur le maire yow demoon nga fa yaa tuddee ay autorité yu bëri ne ma tagaa dama laa gis nga neex ma nga bëgg ma ma jël sama bis tuddee la ko ma ànd ak samay mbokk ànd ak sama samay caméraman dem fee ca rabee feete ko ba mu neex kon baa Babacar maa ngi koy ñaanal yàlla moom it yàlla nay yàgg def ay concert yi concert di ñu ko tuddee di ma ko tuddee di ko tuddee Papiko di ko tuddee yeneen champion yi kon maa leen di bëggee gars yi ba beneen émission jotaayu mbër avec SSP TV ñooy bomb bàyyi rang Vous entendez bien ça, la